ñu santaat yàlla bu baax a baax ju julli si yonante bi ah liñ fi tax a daje nag mooy ah mbir moo xamante ne bii dafa xew si adduna daj àdduna kàpp moo ñu fi tax a daje ah ndaje mi it ñu bokk ko ki nga xamante ni bii yàlla dogal na muy suñu njiit di sëriñ Abdou Lahad Mbacké bi nga xamante bii mooy président mouvement ànd pencoo doolal kees ñu ànd kook moom ak militants yi ngeen seen ñoom ñu ànd koog ñoom bàyyi fay ak soxna yi nga xam yàlla dogal na ñoom it ñu ànd koog ñoom bokkoog ñoom liggéey bi sëriñ Abdou yàlla dogal ah, mu jiite liggéey bi ci anam bu sell ak it ñu mu ko àndal ñëpp ñu bokk fi teew nit ñëpp tey jii ngir a ah, lu mu am leen teg ki nga xamante bii mooy Mamadou caw di meeru Tassette yàlla dogal mu ànd ak moom ci liggéey bu sell ànd ak moom it ci ngoor ak fulla yàlla dogal bi nga xamante ni bii ah mbir mi xaw na moom it mu woo ko am ay xéewal yu mu yëkkati teg ko si loxoom bi ñu ko tegee ci loxoom nag ah mu xamal ni ko de lii de wax dëgg yàlla donte dama koy fabit di dem sama dëkk fa nga xam fa laa dëkk ànd ko militant yëpp woo leen ñoom ñëpp ñu bokk daje. ñu xamante ne lii moom Mamadou Thiaw moo ko yëkkati teg ko suñu loxo ngir lan xeex feebar bi moom it mu ni day lii day du dugg néegam day ñëw mu teg ko nii si ëtt bi woo ñi nga xam yàlla dogal na mu bokk ak ñoom liggéey bi di yi ak képp koo xam bokk na ak ñoom koñ bi mu ni day dama koy teg ñu bokk ko séddale ba mu jeex benn fepp ceeb du dugg sama néeg lépp dañ koy fab séddale ko ba mu jeex jox ko ñi nga xam bi ñoom ñoo ko yelloo kon loolu mu ànd kook ñun ñi nga xamante ni bii wax dëgg dama bokk ak moom pencoo ah fas yéene ànd ak moom liggéey kon ni loolu ñu koy sant bu baax a baax di sant Baye Faye ak ñi nga xamante ni yàlla dogal nag ñooy ay militants yoo xam bi ànd ak ñun ci liggéey bi. kon ni loolu ñu koy sant bu baax a baax di ko ñaanal ah, fépp fu mu bëgg a àgg ak fu mu bëgg a àggale liggéey bi fu mu bëgg a àggale pencoo ànd doolal kees yàlla dimbali ko may ko kattan ak ndam. ak ñi mu ko àndal ban àggal la ko fan ko bëggee di ko xamal nag moom wax dëgg yàlla nu ko Baye Faye waxee rek ab baay Fall la boole kook wax dëgg yàlla ah xolam dafa yaatu xolam yaatu na jëfam yaatu na kon damaa jàpp ni ku ñu yëkkati lii teg ko sa loxo nga ñu dugg sama néeg dama koy teg séddale ko mbokk ñi ma dëkkal séddale ko ñi nga xam ñoom laa ko liggéey bi kooku yaakaar naa bu leen dikkee di ko ànd ak ña nga ko war a àndal kon it ñuy sant bu baax ñu fi teew ñëpp di leen gërëm li wax ci réew ñi nga xam bi yàlla dogal na ah ñu ne fi sëf ndaw ñi lii nga xamante ni bii moom la état bi santaane ñun ñëpp neen si ànd ak ñoom te xam ni ñun la ñuy dimbali te xam nit ñun ñii la ñuy dimbali kenn ku nekket ña nga xam yaa leen jiite ah la nga xam bi mooy liggéey bi ñu santaane ko na nga si jàpp na leen si jàppale di leen si soññ guddi ak bëccëg ndax bu ñu soññoon nit feebar bi yàlla dàq ko mu génn fi ba dootu fi jaar tey lii rek mooy tànk yi nga xam bi moo dogal yàlla dogal ñu war seet taxaw ñun ñëpp bay suñu yooyu tànk kon kenn ku ne fa nga féete njaboot ga neen ci taxaw kenn ku nekk la war ah ñoo si sonn guddi ak bëccëg loolu daal ñu ngi si soññaat ñëpp wax dëgg yàlla ah di sant ñëpp di sant ñu fi teew ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf mbooloo mi euh, man mi waaj wax ak yéen Ibrahima fay laa tudd euh, dëkk Medina Fall di jël wax ji ci turu chargé de la communication communication mooy kuy wasaare ay wax ci biir mbootaay wala ci biir mbooloo bu ñu organiser et fi may commencé wax ji nag mooy di sant yàlla di gërëm yàlla bu baax di sant yàlla ci lii ñu fi dajale tey muy lan muy feebar bii di coronavirus te li ko wundu muy Covid 19. lan moo indi suñu ndaje fii ñi ma jiitoo wax wax nañu ko mooy suñu xalaat lan la muy xeex intérêt national xeex intérêt dëkk bi ndax lan mooy pencoo dooleel Sénégal non pencoo dooleel Thiès kenn waxu leen paacoo Cees waaye pencoo Cees la ñu wax ay doxalin dafee yàgg a jaar ba way neew doole yeeg borom soxla yi muy xale yi muy mag ñi surtout di jigéen ñi di am ay jafe-jafe ñu ne nañu sos benn mbootaay mbootaay moomu buñu ko tasaaree ñëpp gis ci seen bopp mbootaay mi nag pencoo dooleel Cees la waaye boo leen déggee Cees di jànqeen du Thiès dëkk bi rek ville bi mais Thiès département bi la bu ngeen demee arrondissement Kër Moussa pencoo dooleel Thiès mu nga fa bu ngeen demee arrondissement Noto pencoo dooleel Thiès mu nga fa bu ngeen demee arrondissement ba mu ñetti arrondissement yi wër dëkk bi pencoo dooleel Thiès mu nga fa ak ñetti commune d' arrondissement yi na ci biir dëkk bi boole ko commune bu ville ba nga xam ne Talla Sylla ko jiite yooyu dëkk yëpp ñu ngi ci te suñu xalaat yamul rekk ci pencoo dooleel Thiès yemale ko fi dañuy invité sénégalais yi doxalin bu ñuy bëgg a doxal buñ demee ba ñëpp gis ci seen bopp ñu yaatal ko feneen waaye nag mbay ci sawewu tànk ñun cees la ñuy waxagul mooy Thiès ak li ko wër muy département bi bu loolu amee lan moo nu dajale tey muy seddale ay bagages yoo xam ne yi muy ay kotol di ay gel di saabu di ay satalaaki paan ak ceeb ndax tukuleer yeeg joolaa yi ak ngomeen yeeg ñeneen ñi man cee gis seen bopp ndax buñ demee seen xel mi gën a mën a dal loolu nag kan moo waral loolu ki ko waral nag am na suma ngóor suñuy wax Abdoulahat Ndiaye présenté wu na fi léegi ku joxe cër la moom Baye fay dong la may wax te man sama kilifa la ci lii doxal Abdou Lahad Ndiaye dafa wuyoo turam ndax dafay Baye Fall ci lii mu dugg def cee Baye Fallu ba set moo tax ñun ñii ne ci ginnaawam ab yaram niteem bëggam lu baax bañ na ko ba bëggul dara sax looloo tax ñun ñii ñu Baye Fallu ci ginnaawam di ci jàpp. jàppale wuñu ko sunu bopp la ñuy jàppale ndax li tax mooy xalaat bii mu xalaat boole kook ay nawleem ñu ñëw ba jot ci bëgguñu lu dul defar dëkk bi te ku bëgg a defar dëkk bi da euh, euh, jaar ci. loolu moo tax sunuy génn jaare ko biir dëkk bi jaare ko ci rajo yi jaare ko Kayaar dem teeri taset ñu am ay contact maanaam ay relations yi ñu am te gis ngeen Abdou Lahad yamul sax foofa. fu ne yéeg na fa te toogul mu ngi bëgg a yëngu ak ñun ci wërgu yaram comme fii ñuy waxee ni mu ngi bëgg yëngu ak ñun ci koom-koom mu ngi bëgg a yëngu ak ñun ci développement kon loolu bu amee lii nekk comme ni ko sama goro waxee maa asta muy nit ki bu la diggee bu la joxee ndekki bu la diggee añ nga war koo gëm te lii nag lan moo tax ñuy wax muy Mamadou Thiaw du caw doomi Kër Sadaro la waaye nag doomu Tassette la waaye nag doomu nootoo la man mi wax ak yéen am kër fii ci biir di nafaal yaakaar naa doomu foofu la lan moo waral loolu mooy fa laa cosaanoo doog a yëg si fii bi ma ñëwee nag gis waa dëkk bi bëgg seen bopp bëgg a développé wu moo tax ñun ñëpp ñu euh, di ànd ak ñoom dem naa retraite mais dama retiré wu rek waaye nag liggéey ak askan wi la ñu bëgg ñun ñëpp Abdoulahat nag ak euh, Mamadou Thiaw dégg ngeen ni mu ko waxee léegi du Thiaw day suñu rek di sunu doom baay di gone gu baax bu bi ñu demee dëkkam keroog ni ma gis muy jëflanteeg jigéen ñi ci wàllu koom-koom ni ma gis muy lenteeg ndaw ñi ci wàllu koom-koom boobu exemple laa bëgg ñu bari xam ko lan moo tax parce que looloo am solo kon bu ñëwee tey jox nu lii nga xam ne xeebuwut nit ñi ñëw toog di ko di ko bokk ak ñun wax dëgg yàlla mënuñu lu dul gërëm du Thiaw moomu di sunu rakk ndax yorul fa mu nekk ci fo de ko yor ci dëgg looloo tax président de la république ñu ngi koy gërëm au passage muy Macky Sall Covid 19 bi ñëpp a ko jàppale sunu kilifa diina yu baax yi ñu ngi ci suñu kilifa aada yi ñu ngi ci sunu waa gouvernement bi yëpp a ngi takku ci ginnaawam même opposition bi sax ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale donc c'est une question national ñëpp a ci jàpp. te ñëpp ci war a jàpp moo tax ñëpp ngi ci moo tax ba ñu dee joxe résultat yi barki démb ne Sénégal day moo jël ñetteelu place ci àddina bi ci ñaari téeméeri dëkk yoo xam ne ñii ñooy dund bii feebar muy Corée ak Chine ba mu jóge kon loolu déjà ndam la c'est vrai que yàlla moo ñu so jàppale ndax mag ñaa ngi ñaan kilifa yaa ngi ñaan sëriñ saa ñaan waaye tam takku bu sénégalais yi takku takku bu seen njiit takku waral na ba lii aussi yàlla defe ko nii kon bu loolu amee du ñu def lu dul di dolli sant yàlla di gën a sant nga xam naa lii euh, ndoor la rek waaye bu yàggee ëpp lii ñun nag ñuy invité képp koo xam ne kii euh, dirigeant wu collectivité territorial muy maire wala nitu di aada wala nitu koom-koom koo xam ne kii war nga see mën a jàpp nga yëngu boo nu déggee jàpp ak ñun ñu jàpp ak yow ndax ñun dañuy jàppaloo rek ngir soqale dëkk bi ngir jàpp ci dëkk bi waaye lii di Covid 19 di coronavirus yal na ko yàlla dàq muy dem muy dem ba kenn dootu ko gis mu jaare fi dem yoonam ndax lii ci ñeent ci ñeent fukkeelu mbas yi ci àddina bi la bokk waaye xam leen ne ci wàll wu mu jóge moo juróom-ñaareelu ferñeent boo xam ne bii génn rek soxor bi soxor waaye yal na ko yàlla faagaagal mu yem fi wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag di jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdou Lahad suñu coordinateur di ko wax mention spéciale vraiment lépp moom la mam Asta Diop présidente jigéen ñi jiite maa jiite jigéen ñi nekk ci pencoo dooleel Thiès maay seen présidente may nuyoo nag di nuyu Ndiaye di ko beral nuyoo vraiment mention spéciale mooy suñu coordinateur vraiment sonn ci trop initiative bi lépp moom la may nuyu nag ñi topp ci ginnaawam ñëpp ñun doyen Faye kulim Dioum ñun Diallo vraiment ñoom ñëpp bëggoon na ñëw mais ak confinement bi ñu ngi kale Dakar mënuñoo ñëw Koli ñëpp maa ngi leen nuyu passage vraiment di leen ziar Cheikh Sall ñoom ñëpp kulim Dioum. bu loolu passé may nuyu nag groupement yi yëpp ñoom tamit vraiment takku nañu parce que ku leen fu ñu leen woo ñu wuyu mais bu loolu jàllee ñu ngi beral nuyoo monsieur le maire du Thiaw mention spéciale parce que Mamadou Thiaw maire Tasset la. mais ñun cees lañ dëkk mais moom ku la jox ndékki su la nee di nga añ nga gëm ko rencontre bi ñu defoon ak moom mu firndeel nii moom homme de parole la homme am dignité am personnalité vraiment confirmé na ko tey parce que ñëw na tey jii ñu xëy xëy mu woo ñu indil ñu ay bagage di xeex Covid 19. parce que ku la indi lii mu def ni acte bu noble la parce que ku la ni bu ku bëggul nga feebar bëggul nga tilim bëggul nga salte kooku vraiment ku bu la nee bëgg naa war nga koo gëm kon ñu ngi koy sargal di ko di jox wàccuwaayam di ko gërëm di ko ñaanal yàlla parce que fi président teg tànkam foofu la teg tànkam te ñun tam ñu si ginnaawam tey ba suba di nuyu ñëpp di ziar ñëpp wasalaam. waaw di wax nag population bi aussi ñu moytu feebar parce que ñu bëri nee nañ feebar bi ay caaxaan la feebar bu dul ndaw de du ay caaxaan feebar bu lu am la. kon nañ delluwaat ñaax suñu doom yi téye leen ci biir kër yi di leen wax ñuy raxasu ba set di bàyyi nuyoo bi di ku ne téye ku nekk toog sa biir kër loolu bu baax moytu feebar parce que feebar bi nekk na loo xam du ay caaxaan du lu ndaw ndax li waral ñëpp toog seen kër liggéey amatul dara amatul nit ñi débloqué seen xaalis ni di di joxe ay saabu ay gel yu kenn xamul kon loolu du nekk lu ay caaxaan kon feebar bi lu am la nañ ko moytu bu baax a baax a baax loolu ay cons jox samay moroom jigéen ñu yóbbaale ko merci beaucoup. maa ngi nuyu waa Pencoo dooleel Thiès di leen jox seen wàccuwaay di leen jaare muy mouvement bi nga xam ni ñoo bootu ci sama ginnaaw. di tàmbalee fii ci Madina Fall di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Guy Sombel ñoom ñu ngi fi bokk ci pencoo dooleel Thiès di nuyu waa Ersan Daaru Salaam ñoom ñu ngi fi bokk ci pencoo dooleel Thiès li waral daje bi mooy li nga xam ne président mu ngi koy xeex ñu ànd ak moom di ko xeexle ànd ci ak monsieur le maire du caw Tassette mu doon loo xam ne liggéey boo xam ne liggéey bu xarañ la président taxaw ci ak matuwaay bépp monsieur le maire Thiaw taxaw ci ni tey waa Thiès ñoo xewle tey waa Madina Fall ñoo aye dégager ay moyens dugal ko fii ci Madina Fall kon Thiaw ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la gërëm di la ñaanal nga yàgg koo taxawe di la gën a xamal ni laat waa Pencoo dooleel Thiès ñu ngi ci sa ginnaaw waa groupement Guy Sombelit ñu ngi fi groupement Ersan Daaru mu ngi fi groupement Madina Fall mu ngi fi waa Mbour 3 ak Mbour kaat extension ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ngi ci suñu ginnaaw ànd ci liggéey bi ànd ci xeex bi ñuy xeexle président ngir Covid 19 bi jóge ci réew mi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nag tabaraka wa taala mu génn fi balaa bi ñu delluwaat ci activités yi réew mi am jàmm réew mi naat cawit li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ndax doomu aadama kenn du ko xeebal jëfam ñu ngi koy xamal ni ko daal ñu ngi ci sa ginnaaw te ñu ngi ci sa kanam la ma ko waxoon démb rek moom laa koy wax tey fu mu soxlaa na ñëw wooñu lépp lu mu bëgg ñu ne ci lépp lu mu laajit ñu def ko incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. population bi li ma leen di wax mooy ñu gën a moytu di sore di raxasu euh, set gi daal ci biir kër yi luñ ci man daal nañ ko def te xale yi te tëju ni ko président bëggee daal nañ ko defee noonu na ñëpp tëju ci kër yi ñu xeex jàngoro bi mu génn ci réew mi ndax fi mu ne nii nag jàngoro bi dong moo ñu ñor. nañu àndandoo ñun ñëpp def ndigal yi nga xam ne moom la président def caw ànd ceeg moom ñëw fii ci biir dëkk bi ñu ànd ak moom ca liggéey boobu def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah